nijaay Gaynde Njaay dafa organiser woon congrès bu mag ci àll bi ne ku gën a ñaaw danay rey léegi golo ba nëb bët bi di jooy di ñexe ñexe ñexe kenn naan ko golo looy jooy looy jooy mu naan li may jooy dafa tiis yëpp mënu ma ko wax naan ko golo looy jooy mu naan li may jooy dafa tiis mënu ma ko wax rek Gaynde Njaay toog fee ak bi na ko ay golo kaayoo rek mu ñëw mu ne ko yow looy jooy rek mu ne ko nijaay génn njaay damay jooy du tiis mënu ma la ko wax golo ne ko euh, génn na ko waaye wax ma ni ngay jooy waaye rek mu ne ko damaa yërëm bukki <laughs> rek bukki tëlee fële ne ko kat bukki boogaa mii benn si yaayam mii